asalaamaaleykum bokk jullit yi seetaan ak bokk taalibe yi jot nañu ndigal ci sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides yal na fi yàgg te ànd ak jaar ca jàmbaar ja sëriñ Sidi Mbacké moom Cheikh Abdoul fii ni toog nag mooy njaar ñoo ngi ci kër gu mag ca daara ju mag ja boo nee daara ju mag ji xel yëpp dem dana dem ci sëriñ Mor Mbaye ci sa jàmbaar ji dundam yëpp ci alxuraan la ko def jàng jàngale daara ji fii di toog ñu bare ji génn nañ fi bind ay kaamil yu bare am ngërëm fii di sëñ Tuubaa sampoon baayam bu baax moom sëñ moom la Cissé Cheikh Abdou Lahad Cissé mii toog tey nekkal ko fi ànd ba rafet ku gis daara ji tey mbaar mi toog xam ne Cheikh Abdou Lahad mi ngi liggéey yal na yàlla defal ko barke ak gudd fan li mu ci alxuraan yal ko yàlla def ñuy waajal nag bis boo xam ni àddina bépp dañ ca bàyyi xel ren muy le 31 décembre ñu cay fàttaliku sëñ Mor Mbaye Cissé jàmbare alxuraan ji loolu nag bala maa sori ci kàddu yi njaboot gaa ngi nii toog. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan yëpp bu ngeen gisee sun jataay bu tedd bii ni ko sëñ Ibra Cuun waxee xam ne bés bu tedd bi dellu siwaat na te mooy bésub alxuraan. bis bi nga xam ne dañu ciy fàttaliku jàmbaar ji nga xam ne moo nekkoon ci barab bii di liggéeyal sëñ ci téere bu tedd bi kooku mooy kan mooy Serigne Mor mbay Cissé bisam bi mooy dellu si siwaat war a tolloog le 31 décembre euh, war a tolloog ajjuma incha allahu taala al karim mi ngi ciy séentu ñëpp nag sëriñ bi mi ngi ciy woo mbooleem dongay daara yi mbooleem ñi nga xam ne am nañu kóllëre ak alxuraan am ko ak sëñ bi sëñ moor waaye mbooleem donga yi nga xam ne jaaroon nañ ci daara ji di jàng ak mbooleem jëwri ni daara xam ne ñooy magi daara yi ñëpp sëriñ baa ngi leen di woo ci bis bi bis bi nag sëriñ baa ngi koy yëgal njabootuk sëñ Mor Mbay si gépp di jëwriñ yi nga xam ne ñoo ne woon fii ci daara ji di jàngale njiitu sëriñ Moustapha Guèye ak njabootam gépp sëriñ baa ngi leen di fàttali bis bi di leen ci woo di ak njabootuk sëriñ Malick Dieng ji te sëñ Cheikh Abdou Dieng nekk ca bopp njaboot ga ak njabootuk sëñ Malick gépp ak rabitatul quran bi nga xam ne sëriñ siiru jeng moo ko jiite ak mbooleem daaray alxuraan yi nekk ci njaarim yëpp sëriñ baa ngi leen di fàttali bis bi di ko fàttali itam kilifa yi nga xam ne it dañu fee nekk itam di ay njaboot di ay kilifa te mooy kër sëñ mat dem euh, sëñ Cheikh dem mi nga xam ne mooy xalifa sëñ mat dem moom itam sëriñ baa ngi koy yëgal bis bi ak njabootu sëñ ma dem gépp naka noonu kër euh, kër sëñ Mor Absa Lo itam sëriñ baa ngi leen koy yëgal di ko jaarale ci xalifa ba maamam sëriñ Saliou Lo moom sëñ ab sa ak njabootu sëñ Mor Absa Lo gépp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di jiital nag ci sunub siyaara ak sunu nuyoo sëriñ Abdou Lahad Cissé mii toog nga xay moo nekk tey ci buntu kër sëriñ Mor Mbaye Cissé nuy ñaan sunu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool. fan wu gudd wànd ku wér suñu borom defal ko ko waaye defal ko mboolem njabootuk sëriñ bay Mbaye Cissé gépp góor ak jigéen mag ak ndaw muy doom yi ak sët yi bàyyi wuñu kenn di siyaare sëriñ Sidi Mbàkke moom sëñ Abdou Lahad mi nga xay mooy jëwriñi sëñ Abdou Lahad si mii ndax da sëñ Mor da koo dippee sëñ Abdou Lahad jébbal ko ko di siyaare ko bu baax moom Mbacke Balla di siyaare njabootu sëñ Abdou Lahad gépp di leen ñaanal li nu ñaanal sëñ Abdou Lahad Cissé rek mooy fan wu gudd wànd ku wér noonu lan siyaare Cheikh Mamadou Mountakha Mbacke mi nga xam ne moom it mooy kilifa kilifa yi yëpp ci jamono yii nu ne nuy ñaan sunu borom bàyyi ko fi. lu yàgg lool te mu ànd ko wér ba naal yi mu naal liggéeyal maamam ci tool bii di toolu diine l'islam mu def ko na nga ko bëggee te lépp waaye noonu lañ siyaaree mbooleem njabootu Serigne Touba gépp waaye noonu lañ siyaaree mbooleem njabootu këri diine lislaam yëpp wuñu génn kër ndax ki nga xam ne moo waral ñuy woote bés bi di Serigne Mor mbay Cissé sëñ moor mbay Cissé sëñ sëñ la waaye sëñ Mor mbay Cissé moom alquran la Serigne Mor mbay Cissé moom lislaam sëñ Mor Mbaye Cissé moom jullit ñëpp waaye sëñ Mor Mbaye Cissé moom Sénégal gépp kon moom àddina bépp rek sëñ Mor Mbaye moom àddina bépp ndax ku daan ñaanal àddina bépp la léppam jeexal na ko ci lislaam fàttaliku ko mooy fàttaliku alquran fàttaliku mooy fàttaliku xasida mooy fàttaliku lépp lu aju ci diine lislaam waaye mooy fàttaliku ñooñ lislaam itam mooy fàttaliku it ñooñ Sénégal rek ndax sëñ moor moom sëñ Mor addina jëpp la addina jëpp la kon nag bésam boobu ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn biir réew mi di Sénégal ak bitim réew Sénégalais yi ci bitim réew ñu ngi woo ñëpp di leen ko yëgal bëgg na kër ku na nga teew fi bis la boo xam ne bisu pajuk aajo la ci saayir ak ci baatin man nag lama ma daan wax rek man Mbaye Nguirane moom sëñ Mor Mbaye Cissé ñi nga xam ne ay lañ ci man ak nga xam ne ay xarit lañ ak ñi nga xam ne dañ ne ñooy samay soppe ñu naan soppe sëñ Mbaye Nguirane ci daayiratu maj mu nóoré ni ak ñoo ñëpp dama leen di wax naa leen bisub sëñ moor kum jëralut yëngu bis bu ma faatoo bul ñëw waaw man loolooy sama mbir bisab sëñ Mor sëñ Mor comme jëralul rek yëngu bu ma faatoo bul yëngu ndax boo yëngoo ñëw ci man ñëw nga ci néew bu la jéppi ndax man bis bi rek mooy sama bis man na bu ngeen gisee ma jël kàddu gi fii sama woote lay jëm ci tur turandoo yi turandoo sëñ Mor Mbaye Seye bépp turandoo boo xamante ne si daal ñi ngi daan ànd ak yow ñu ngi lay woo ci bis bi ndax turandoo yi daa am liggéey bu liggéey bu rëy boo xam ci dañ ko amel ci bis bi di ko liggéey ndax sëñ bi dañoo bàyyee lépp lépp lu jëm ci wàllu baas bi ak tànt bi lépp nu mel rek turandoo yi ñoo koy melal noonu kon daal ñu ngi ciy woo turandoo yëpp ñu fas yéene koo waajal waaw comme ni ngi daan defee rek at mu jot rek kenn ku ne nga bàyyi ko xel noonu rek addiya ji nga xam ne moom daan yëkkati di ko joxe kenn ku ne nga waajal ko muy juróomi junni ba lu waaye man rek ñu fas yéene ko waajal ndax liggéey bi ñu ci liggéey daa xaw a lool ndax li jëm ci wàllu bâche bi yeeg tribune bi yeeg lépp rek lépp la aju ci wàllu bâche rek ñoom turandoo ñoom ñoo koy ñoo koy saytu kon ñu ngi ciy woo ñëpp rek turandoo yëpp bàyyiwuñ kenn xanaa tamit di woo tamit koo xam dañ si rek jaar nga ci daar ji ba jàll ñun ñëpp ñu ngi leen woo ci bis bi. bis di màggal sunu sëriñ sëñ Mor Mbaye Cissé yal na yàlla doole ay leeram fa mu nekk te taas ñu ci barkeem. muy tombeek ajjuma di fanweeri fan ak benn ci weeru tubaab bi ñuy wax décembre deux mille vingt et un man Cheikh Gaye nag ma ciy woo sama wóllëre yëpp di àbbu kàddu sama baay sëñ Mbaye Ngiraan ne képp koo xam ne kii sama mbir saf na la. boo ñëwul ci bis bii leneen lu ma xew la jarut ngay ñëw maa ngi ciy woo sama mbokki jàngalekat yëpp di ci woo sama xarit di ci woo ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sëñ Babacar Gaye ci kër Cheikh muy njabootam lu doon wóllëre sëñ Mor Mbaye siise te dundal kóllëre googu moo waral sama jotaay toog fii tey maa ngi ciy woo nag ministre Dame Diop ma ciy woo nag képp koo xam ne da ngaa kër maam Cheikh Ibrahima Fall te woote boobu nag maa ngi koy tàmbalee ci képp koo xam ne da ngaa yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall di ci woo ak waa kër sama wasila sëñ kër sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar di ci woo di ci woo waa kër sëñ Amady ak mboolem bunti kër maam Cheikh yi nekk kër Cheikh maa ngi leen ci woo ak seeni i dong ak seeni i wóllëre di ci woo nag les autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Njaareem tàmbalee ko ci monsieur le gouverneur. jaar ci préfet du département ñëw ci monsieur le maire de la ville Malick Fall jàpp ci mbooleem koo xam ne ki kilifa nga bon di nga bokk ci CRD bi di chef de service yàlla am lu mu la dénk nga koy liggéey ci dëkk bi ñoo ngi la ciy woo. tamit ñetti ñetti woote moo am Sëriñ Tuubaa ne ñetti ñetti wootekat moo am sëriñ bi nga xam ne dara woo jëmale ci boppam. ak sëriñ bi nga xam ne dalaa woo jëmale seen bopp ak sëriñ bi la woo jëmee nañ ci yàlla nee na ñett ñaari sëriñ yëpp sawaral lañ jëm ak ñañ doon woo mu des nag jër sëriñ mi woote niñ jëmee nañ ci yàlla loolu ko dem ci mañ wax bi suñu blaat bind eh, eh, def waxtaan suñ Tuubaa ma ngi kon dina woo ci turu turu sër yëpp dina xamal ne man tamit loolu ma ñu mag maguma ci sëñ sëriñ Seex Sise moo ci mag di leen nuyu ci jataay bi tamit suñ seexuna si mi ngi ni toog sama kilifa la suñ Malick dama wax seen tur rek. wax dëgg yàlla buñ ñu waxloo suñuy wax daanaka dafay tënku rek ci ni ci woote ci woote ci bës bi di xamle ni nag bàyyiwuñu ci kenn képp koo xam ni yaa ngi ci biir Bawol ak li ko wër ñu ngi la ciy woo ñu ngi woo mbokk yi ñu ngi woo xarit yi ñu ngi woo am di jàmm yi. ñi nga xam ni nag dañoo séq ak ñoom tamit àdduna muy euh, responsable politique yi nga xam dañoo nekk ci dëkk bi te bu ñëwee ba ci goxu kër gu mag ñu mën cee ràññee Moustapha Guèye ak soxnaam Fat Diané mën cee ràññee Ibra Mbacké waaye bu ñu jàllee ba ca yeneen gox goxaanee ñu mën cee ràññee docteur Soumaré ràññee ci euh, Sayer Diop. wax dëgg yàlla ràññee ci tamit comme niñ ko waxee ñëpp junje ko noonu monsieur le ministre daam Diop ak soxnaam ku ne xam na seen taxawaay ci Bawol waaye ku ne xam na seen taxawaay ci kër gi ñoo ngi leen ciy woo bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne daal wax dëgg yàlla yaa ngi ci biir dëkk bi nekk autorité ñu ngi la ciy woo monsieur le maire de la commune de Diourbel muy Malick Fall ñu ngi ko ciy woo bu wér a wér a wér a waa diaspora bi duñ leen fàtte damay jël nag lépp lu aju ci diaspora bi teg ko ci koo xam ne nii kenn la ci man muy sëñ Ousmane Badiane bi nekk ci diwaanu États-Unis taalibe akan ku farlu ci liggéey bi ku bëgg sëñ moor ak waa kër gi kon su ma ko tuddee rek tudd naa waa diaspora bi yëpp en tout cas bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn ñi ngi woo ñëpp ci bés bi kañ lay doon nag le 31 décembre incha allah comme niñ ko doon defee fii ci kër sëñ moor mbay Cissé kuy jawriñ ji sëriñ Laat Cissé ah olof Ndiaye nag dafay wax lu am solo buñ nee diw ndax baax na dañ naan ndax mbokk ya ñoo ko wax ñun nag Euh, dañuy fësal ne ñun njabootu jigéenu sëñ Mor mbay Cissé sant nañu sëriñ Abdou Lahad Cissé sant nañ ko bu baax a baax a baax a baax ndax maanaam nañu sëñ Mor taxawee woon euh, sëñ Basirou Cissé mu baax ma taxawee ko ak ñun ca la ne lekkul dara bàyyi ñu aar nañu yiir nañu toppatoo nañu. waaw ginnaaw bi nuyoo sëriñ sunu sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha nga xam ne mooy kilifa gi di ko siyaar di ñaan li ngeen koy ñaan yàlla bàyyi ko bi yokk ko sàmm ko. Ah, di di nuyu sunu sëriñ sunu wasila muy sëriñ Sidi Mbacke ndax semaine bi laa àndoon ak sëñ moor mi ñu dem bukki barga at mu ne bala ma cee def dara naa ko dinaa ñëw ba waxtaan ceeg yow waaw mu ne ma daal moom am nga ci ndigal tàmbalee ko ci sëñ Mbaye ngi mi mooy jëwriñu kër gi di nuyu borom rajo bi muy sëñ Aliou Thioune ah, muy nit ku baax koo xam ne nii ban tàmbalee fii ba tey mi ngi ko ànd ak ñun te mësunoo teg wenn sas waaw di woo adduna bi yëpp tàmbalee ko ci borom réew mi waaw ak ñi mu yilif ñëpp ministère yi nga xam ne nii moo ñoom la yilif ndax bisu sëñ Mor la te sëñ mooro moom ñëpp la jàppale ñëpp la defar waaw ak gouverneur de la région ak ñi mu yilif bàyyiwun kenn monsieur le maire bàyyiwun ko xaadim Gueye bàyyiwun ko waa diaspora bi tam ni ko Penda waxee ah bàyyi ñu ngi nuyu ibrahim Ibrahima Ndiaye nga xam ne moom secrétaire sëñ Mor la particulier moo ko daa bindee lettre yi waaw ñu ngi gërëm ñëpp di woo ñëpp di séentu ñëpp waaw di ndax ah, mënuñu tudd ñëpp daal waaw waaye daal bis bi daal ni ko sëñ mbay mi wax ñun tam nattukaay lañ ci def waaw bu ñëwee daal képp koo xam gis nan la ci nga wax ci jëf ci loo mën a ne daan ci ànd ak yow soo ci maandoo tim koo mën a doon tim lu mën a xew tim man du ma jóg yaa ayyuhallaziina aamanu laa tattabi'u xutuwaati shaytaan